yéen ñii di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës kolos bi ngir man di jot suñuy notification waaye bu leen di fàttee sem tey partage suñuy video ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين sayyidina muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabati ajmain wa man tabia athaarahum ila yawmi ddin ayuha al ixwa almushaahiduuna alkiram allazina yutaabicuunana fi haza almawqic faida tv nuxayikum fi haza almawqic wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa nucabbiru amma fi sudurina min assurur walfarax bi ihtimaamikum bima yajri fi haza almawqic min albaramij almuxtalifa almutanawica wa nadcu llaha lakum wa lana wa lisaa'iri almuslimin an yataqabbala minna jamica alxarakat wassakanat bokk yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay baaxoo topp suñu kër gi di Faaida TV fu ngeen mën di nekk rek ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen xamal ne ñoo ngi fii ci Touba Mbacké euh, di fa yéene waajal 18 safar bi nga xam ne euh, Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul nekkoon ku jeex tàkk ci boroomam subhaanahu wa taala waaye dundam gépp tam mu jeexal ko ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye itam nekk koo xam ni dundam gépp mën nañ ni yàlla jàngale na ci maanaam ab jaam nan la wala wara jànkoonteeg natt yi nga xam ni moom la ko borom bi subhaanahu wa taala di teg ak naka la koy muñe mu mel ni nag jii la 17 safar maanaam fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar kon suba jàmm ci dimanche ji ci lay doon 18 safar di bisu màggal gi ñu nekk fii nag ci suñu kër soppe suñu kër xarit suñu kër wóllëre Cheikh Abdourahmane Ka nga xam ni kenn la ci ñun depuis des années yàlla dogal ñuy dal ak moom fii ci kër gi ak mbooleem loo xam ne am nañ ko ci ay xarit ak i mbokk aki i wëllëre dañuy àndandoo dal ak moom fii te képp ku fi dal rek wax dëgg yàlla bu déwénee da dangay amat amaat cawarte dalaat fi ndax toppatoo gi nga xam ne mi ngi koy toppatoo gan ñi ak woyof gi muy àndal ak mbaax gi wax dëgg yàlla su ko defee nag tey dañoo bëgg a jagleel xalqa bi muy jotaay bi lenn ci ay ndénkaane yoo xam dañ koy dénk suñu bopp waaye di ko dénk nag mbooleem kuy jullit waaye di ko dénk nag képp koo xam ne nii li ñuy wax baatu muriit dafa nekk ci sa xol te muriit niñ koy faral di leerale saa su ne rek nekkul lu dul rek koo xam ne dafa namm boroomam subhaanahu wa ndax toujours dañ koy idaafal ci Allah muridullah lañ jubloo wax mooy ko xam dafa namm boroomam subhaanahu wa muy baat boo xam ni cheikhul xadim mi ko jëlee ci alquran ndax borom bi subhaanahu wa taala moo joxoñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko wala tatrudi allazina yad'uuna rabbahum bilghadaati wal ashi yuriduuna wajha ah, bul dàq mukk te baatu bul dàq boobu dafa am lu ko sabab ba tax sun borom ni ko bul dàq gaa yi nga xam ni dañoo nekk di jaamu seen borom guddeeg cëg di ko toroxlul ak di ko ñaan nga xam ni ñoom daanaka seen xol daray daray àdduna nekku ci loolu nag ci jamono yenn bi sallallahu alayhi daf ci amoon kuréel gu ràññeeku goo xam ni ñoom daanaka rekk amuñu woon jenn yitte lu dul jaamu yàlla ba bëccëg nga xam dañoo fanaaw woon daanaka sax àdduna amuñ ci woon luñ doon xemmeem ak di ko wut ba melokaan woowu ñu yore woon xawoon a feeñ ci seen jëmm ci seenu col ci seen melokaan ndax ñàkk maanaam bàyyi xel àdduna ba am nuñ mel ba tax sax yenn ci notable màkk yi nag ni yonent bi ah ñii moom danga leen di jëlee ci sawet ndax boo bëggee ñuy toog ak yow ah, façon xeeti nit ñi kat moom Ah, wax dëgg yàlla duñ mën a toogandoo ñoom a ah, mu mel ni nag loolu bi ko sun borom déggee rek dafa daal di wàcc aaya ni ko bu leen dàq mukk gaa yi yor melokaan wi melokaan wi bu leen dàq wala tatrudi lazina yad'una rabbahum bil xadaati wal ashi ndax kan ñoom yuriduuna wajha ñoom ah, dañoo namm jëmmi seen borom waaw waaw dañoo namm jëmmi seen borom subhaanahu taala Euh, baatub yuriduuna boobu rot ci alquran di di fi'lu mudaari' euh, ismu faa'il bi muy murid moom la cheikh na ahmada tijaani jëfandikoo tudde ko ay taalibe muy muridullah koo xam ni yàlla kese kese la namm cheikh abdul qadir jilaani mi jiitu moom it moom la tudde woon ay taalibe baatu murid bi foo dem ci ñoom ci seen téere yi da ngay fekk ñu koy jëfandikoo seen taalibe yi murit lañ leen tudde cheikhul xadim bi mu ñëwee nga xam ni e, yëf yi benn la dafa yeesal rek ndax nañ bàyyi xel ni e, diine lislaam moom jenn diine la mboolem ashuyux al ajilla yi fi jaar muy kilifa yu mag yooyu yëpp lépp loo xam ne yor nañ ko rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen ko jox loolu amul benn werante tàmbalee ko ci Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Cheikh na Ahmada Tidiane ak Abul Hasan As-Sajali ñoom ñëpp lañ yoroon ci ay awraat amul sikki sàkkani yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo leen ko jox te kenn ku ci nekk rek bu ñëwee dafa yeesal la ko ka jiitu woon yoroon su ko defee xëy na méthode yarin wi mën naa wuute méthode yi ni ñuy yéegee man naa wuute waaye moom benn lay doon moo tax Cheikhul Khadim bi mu ñëwee norme yooyu da ngay gis mu koy junj fu baree bari di leen joxoñ di leen tudd ndax ku nekk xam na ni sax eh, at tariqa al ula muy tariqa bi nga xam moo njëkk ci bi mu jëfandikoo mooy at tariqa al qadiriya muy tariqa bu fi yàgg boo xam ne nii wax nañ ni mi ngi ko jële ci way juram maam Mor Anta Sali moom la fekkoon mu yore ko mu jëfandikoo ko moom cheikhul xadim ba àgg ci fi ci àgg ba sax wax ni radiya anni sibtuhu jilaani alayhi ridwanu allazi alaani al jilaani ñu ngi koy dàkkantele cheikh abdul xaadir jilaan baatu cheikh abdul xaadir jilaani gërëm na ma dafa am lu muy tegtale ndax nitit bu lay gërëm dafay fekk nga def lu sedd xolam kon cheikhul xadim daf ñuy junj ni euh, tool ba nga xam ni nii bo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo sasoon mu bàyyi ko moom cheikh abdul qadir jilaani tool boobu moom cheikhul xadim sóobu na ca ba bay ca waar woo xam ni yayoo na nag ngërëm loolu lay junj cheikh abdul qadir jilaani gërëm ko mu saxal ko ci ay mbindam wax ni yàlla na ko yàlla dolli ngërëm moom yàlla mi ma kaweel alayhi ridwanullazi alaani waaye itam ba mu ca jóge itam mu boolewaat ca weneen wérd muy wérd wi nga xam ni mooy assazali muy wérdu abul hasan assazali foofit mu jaar fa fa mu jaaroon fe rek ba wax ni radiya anni sibtuhu abul hasan alayhi ridwanun yuxallidul hasan Euh, sëtam bi nga xam ni moom sallallahu alayhi wa mooy abul hasan moom it euh, bayal naa ko ca tool boobu lu yayoo ngërëm ba ngërëm na na ma kon nag maa ngi koy ñaanal ngërëm loo xam ne nii day saxal dàkk lu rafet ci moom waaye mu daldi dem ci wirdu cheikh na ahmad tijaani daa di fay bay waaram moom it ba yeyoo fa ngërëm moom it mu saxal ci mbindam wax ni radiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mubiidil jaani maa ngi ñaan eh, wax ni <coughs> Cheikhna Ahmada Tijaani moom it gërëm na ma ginnaaw ba ma bayee sama waar ca tool boobu ko sallallahu alayhi wa sallam joxoon baye yoo ca ngërëm kon nag maa ngi ñaan ngërëmal yàlla mi nga xam ni mooy alak aji tooñ yàlla na sax ci moom ci biir xasida googu sax cheikhul xadim dem na ba wax ni sax radiya anni xulafaul arbaa xustu ridal muqarrabinal mutbia wax ni xulafaul arbaa sax eh, gërëm nañu ma ci li ma bayal eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tool yooyu nga xam ni daf koo eh, boyaloon ci nitu yàlla yooyu ma tudd léegi muy Aboubacar Omar saydna ousman liin alin alayhim ridwanullahi taala ajmain ñoom ñëpp di xulafaawul arbaa gërëm nañu ma ginnaaw ngërëm loolu nag moo tax cheikhul xadim daal di saxal ni ah man lam yakun anniya yarda fal karim radiya anniya ridan laysa yarim képp koo xam ni nag sa ngërëm maanaam da ko koo soxore jëmee ko ci man maanaam képp ku ma gërëmul rek na nga xam ne yàlla mi aji tedd moom ngërëm na ma ngërëm loo xam ni amatul fu mu yem waaw ya fu muy yem ba ilaa yawmi diin ngërëm loolu day sax dàkk jëm si ci man cheikhul xadim nag ci noonu kon ginnaaw bi mu bayee tool yooyu yëpp nag ci la ko boroom bi subaanu wa taala jaare ci sangam ba daal koy nag rëddal ab toolu boppam boo xam ne nii moom lañ ko sas ginnaaw ba mu xëyalee ñële ah looloo tax tool boobu mi ngi ko amee ci ginnaaw géej gi bi mu demee Gabon ba def fa juróom-ñetti atam yooyu ca Mauritanie nag ca la di amee kado bu toll ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam indil ko li nga xam ni mooy al wirdul maxuuz nga xam ni yaqzatan laa maanaam ni mu ko nettalee ci lu dul ay nelaw ci la ko ñëw nag jox ko wirdul maxuuz mu ame aw wirdem na ko turuq ya ko jiitu woon amee woon muy wirdu woo xam ni nag képp koo xam ni nii aju nga ci moom war nga ko fonk fa fonkeel yam ndax wax dëgg yàlla bari na lool ñuy woote woo ni taalibe cheikhul xadim lañu ay murid lañu waaye wirdul maxuus moom daanaka bokkul ci sax loo xam dañ koy gëstu ba man caa xam dara waxuma laa nag di ko di ko jëfandikoo te muy loo xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jox foofu ca Mauritanie kon loolu ñu ngi koy dénkaale taalibe yi di ko dénk suñ bopp ñu bàyyi ko xel wax ji nag li ko waral mooy ñun ñi nga xam ni dañoo askanoo ci cheikhul xadim waruñoo bokk mukk mukk ci ñi nga xam ni euh, parparloo gi xew ak wax yu ñaaw yi xew ci réseaux sociaux yi ñun moom waruñoo yóbbee ñuy noonu benn tariqa ci atturuq as-suufiya yi wala ñuy noonu kenn ci awliyaullah yi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax cheikhul xadim def leen a fonk lool te noonu ma ko waxee ba mel ni sax ba mel ni buñ ko mënoon a wax kuy puukare woon gërëm guñ ko gërëm ba koy tudd ndax loola weesuwul am ca mbégte mbégte mim am ci gërëm gu ko Cheikh na Ahmad Tidiane gërëm Cheikh Abdul Xaadir Jilaani gërëm ko Abul Hasan euh, Achazali gërëm ko ba tax mu saxal ko ci mbindam loola am na lum ñuy jàngal ñun ñi nga xam ni dañoo askanoo ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul lim ñuy jàngal mooy ah ñun day ñooñu moom xawma kan waaye ñun ñoo leen war a gën a wagar ñun muriti ñun ñoo leen war a gën a fonk ñun ñoo leen war a gën a respecté nga xam ni dara du ñu yóbbu ci ñuy noonoo ñooñu wala ñu askanoo ci ñoom mboolem koo xam ne nii ab tijaan la ñun ab xarit lañ ko war a def ab soppe lañ ko war a def naka noonu mboolem koo xam ne ab xaadir la wala koo xam ne nii dafa yor sax beneen tariqa ci turux turux yi su ko defee jaxas gi nga xam ne nii yenn saa sax ñi nga xam ni dañoo weddi tasawuf gëmuñu tasawuf nga xam ne nii gëmuñu wilaaye sax te di ay jullit bokk ci yenn firaq ci firaq islamiye yi jaxas yi nga xam ne dañ koy def parfois di ko dugal ci suñu biir pour féewale ñu ñun ñi nga xam ne dañoo gëm tasawuf gëm wilaaya gëm ni yàlla dafa am ay gaay yu ko jige lool loola bu ñu yeewoo rek duñ ñu ca dugal loola lu jar a bàyyi xel la ndax am na xadis boo xam ne ni bu ñu demee ci kutubul ahadis dañ ko fay fekk wilaaya moom borom bi subhaanahu wa taala moo ko saxal ni lu saxla te ci gaayam yi am na ci ñoo xam ne nii àgg nañ foofu daanaka rek moom borom bi subhaanahu wa taala mooy représenté wu ci seen biir jëmm mooy refletewu ci lépp loo xam ne dañ koy def mbaa ñu koy wax loolu it kenn mënu koo dàq ndax muslim sax saxal na ko ak yeneeni kutubu ahadis borom bi subhaanahu wa moo wax ni man aada waliyan faqad azantuhu bil harb képp koo xam ne danga noonu sama benn waliyu man yàlla déclaré naa la guerre xadis bu gudd la ca biir hadis ba dafa wax ni wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi nee na sama jaam bi amul lu muy def di ma ca sàkkoo jige lu ma gënal man yàlla li ma faratal ci moom maanaam sama jaam bi amul lenn loo xam ne nii daf koy def di ca sàkku jige ma man yàlla loo xam ni gënal na ma li ma farataal ci moom ba noppi na jiital yi ma farataal ci moom julli koor natt asaka aj màkka su ko manee yii moom da koy jiital ba pare te yaakaar naa ni la tàmbalee ci ñii ma tudd ba ci Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul mi ñu gën a jige ku ne xam na ni waxtu julli moom bu euh, jëlale naa ko xalaatuñu koo faat bu ñu ñëwee ci naafile yi waxi nopp koo xam ne nii amul julli gu muy julli te du da koo jàppul da ko jàppul ak lu ndox manqué manqué nga xam ni sariya wut dogal na ko ngànt dana ko jàppul donc kon ñoom jiitaloon nañu lool koor waxi nopp waaye ci biir hadis bi borom bi subhaanahu wa taala daf caa wax ni nag wama wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafili fii la bëgg bokk yi déglu ko bu baax rawatina nag ñiy diingat wilaaya ak ñiy dingat ni yàlla moom dana dem ba jeex tàkk ci ab jaamam nekk fa daanaka nekk fa yenn saa kenn ci ñoom moo xam Cheikh la moo xam Cheikh Ahmad Tijaani moo xam Cheikhul Xadim yenn saa yi kenn ci ñoom wax wax joo xam ne nii dafay xaw a mel ni ku naqaree lu naqaree dégg ci ku amul ndimbal waaye nag boo demaatee ci ahadis yi ak alquran daanaka sax boo étudier analyser da ngay xam ne lii lu mën a nekk la daray bokkaale nekku ca ndax xadis bi moom werante wuñ ak wéram te borom bi subhaanahu wa la moo wax ni wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafil sama jaam day du deñ di ma jige-jigelu ci ay nawaafil nawaafil mooy loo xam daf koy def volontairement ci coobare santuma ko ko du julli farata du kooru ramadan du natt azaka du aj màkka du nekkul lu ma ko farataal julli yi nga xam day jékki saay di coobarewu di ko def wala kooru ngàtt nga yi nga xam day jékki saay di coobarew di ko def wala saraxe bi muy génn te du azaka guma ko gàll wala sax omra yi muy def te du loo xam ne aj la xeet yooyu nga xam dafay volontaire di ko def sama jaam bi du deñ di ko def di ko def di ko def ba ma mujj ko sopp man yàlla xatta ahbabtuhu ba ma mujj sopp ko nee fa isa ahbabtuhu su ma ko soppee nag man yàlla maanaam sama jaam bi du deñ di nekk ci lool ba ma sopp ko man yàlla su ma ko soppee cofeel ga lii lay jur lii may bëgg a wax fa isa ahbabtu su ma ko soppee kuntu samaahu lazi yasmau bi man yàlla may mujj doon nopp yi muy dégge nañ dégg lu baax li may wax yàlla nee na sama jaam bi du deñ di toggoo ay coono yoo xam ni teguma ko ko pour bëgg maa jige te lii ko xool dunduk Cheikh Ahmad Bamba Xadim Rasul xam ne moo ci fees dell loo xam ne nii dara yàlla yàlla tegu ko ci maanaam ci li ñuy wax sariya nekkul lu ko yàlla togg dafa coobarewu di ko def pour bëgg a jige yàlla pour bëgg am ngërëmul soppeem bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay koor ci ay salaatu ala nabi ci tagg yonent bi ci lum am joxe ko ci ci ci ci nawaafil guddeeg bëccëg et cetera hadis bi nag ni jaam bi du deñ nekk ci lii nekk ci lii ba ma sopp ko su ma ko soppee maay nekk ay noppam man yàlla kuntu samaahu lazi yasmau bi yow nag dégge ko ko nu la neex ndax tawil moom ak détail moom ñu ko tere kenn ndax kutubu tafasir yi moom bari na lool ndax euh, ba euh, kenn ku ci nekk ak sa déggin ku nekk sa déggin waaye wax ji moom waxi borom bi subhaanahu wa taala la muy hadis qudsi maay nekk ab noppam samaahu lazi yasmau bi waaye maay nekk basarahu lazi yabsuru bihi maay nekk bët yi nga xam ni moom lay gisee moom sama jaam bët yi muy gisee man yàlla maa koy nekk kuntu basarahu lazi yabsuru bihi maay nekk tamit kuntu yadahu lati yabtushu bihi yabtushu biha maay nekk loxo bi muy joxe maay nekk loxo bi muy joxe kuntu rijlahu lati tamshi biha maay nekk sax tànk bi muy doxe waa lii soo ko étudier mooy maa fay na rek sama jaam bi du deñ du deñ di ma jige jigelu ma ñor ko ci xolam mu fase àdduna di ma jige jigelu ci xeet yii ma wax te teguma ko ci dara waaye bëgg maa jige ba mujj àgg àgg fii ma wax c'est-à-dire fay nekk moo tax yenn saa yi xam ngeen ni eh, en laaj ci nitu yàlla yi waxoon na wax joo xam ne sariya daf ko yi naka noonu da ngay dégg ku mel cheikhul xadim radiallahu anhu di wax ni damma xayaati li xayaatillah maanaam yàlla jël na sama dund tàmpe ko ci ak dundam maanaam boole ko lii wërtëre yi ci yow daal bu fekkente ni nii xadis bi moom saxal nga ak wéram te dooni ma da nga koy wedd wala nga koy daayfal ndax mu ngi ci kutubu ahadis yi su ko defee yii rek lañ leen di dimbilee lii nag jotewul ak dara ak shirk li nga xam ni mooy bokkaale yàlla kenn ku ci nekk xam na ni ñoom li ñu woote ci tawxiid jëme ko ca kenn mësu koo woote xam ngeen ni cheikhul xadim ni mu kenn la yàlla dafa mel ni ku demoon ba fanatisme te loolu sax moo jaadu maanaam jaam bi ni muy kenn la yàlla da cee war a fanatisme maanaam dafa war a dem ba jox yàlla lépp loo xam ni yelloo na ko te it mu bañ a am fu mu yem te loolu dañ koy fekk cheikhul xadim bind ci ndax xam ngeen ni tubaab yi ko génne sax ba waral xéewal yi mu am mu am ko ba woote sant yàlla boo demee mi ngi wax ak ñoom di leen wax naan yaa jumlatan qad sallasu bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu yéen mbooloo mi nga xam ni yi da ngeen di bokkaale yàlla jël yàlla def ko ñett muy nasaraan si ndax xam ngeen ni tubaab yi ko fi génne woon diiney christianisme lañ fi nekkoon di ko installé tàmbalee tabax ay église tàmbalee tabax ay école pour jàngal ñu seen religion pour jàngal ñu seen civilisation cheikhul xadim lii moo ko jotaleeg tubaab bi mu ni nag moom principe bi mu am mooy dafay contre loolu moom li mu gëm mooy diine lislaam ji nga xam dafa kennal yàlla moo tax foofu mu joxañ leen yéen yéen ñi nga xam da ngeen a ñettal yàlla wutal ko soxna ak ak doom ak moom yàlla yéen day kennal nge eh, bokkaale ngeen koo xam ni amul baay amul doom jurul kenn kenn juru ko man lam yakun wala dun lahu aw walidu axrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu génne ngeen ma nag te génne gi ngeen ma génne tegu leen ko fenn fudul di wax ni man jaamu yàlla la. kon gis nga Cheikhul Khadim fii la nekkoon xasida la goo xam ni Cheikhul Khadim ba muy lim ngànnaay yi nga xam ni moom la àndal pour mu war a xeex ak tubaab bi te yaakaar ni ngànnaay yooyu moo gën a efficace sax ngànnaay yi tubaab yi yor te ku ne xam na ni tubaab yi jamono boobu ngànnaay yi ñu yor bokk na ci leen nit ñi ragale woon bokk na ci li leen mboolem sénégalais yi wege woon respecté leen ci ndax ngànnaay yu efficace la waaye Cheikhul Khadim moom jàpp na ni ngànnaay yi mu yor nii moo gën a efficace ngànnaay tubaab bi te ngànnaay yooyu nag daf ca boole ni tawxiid muy kennal yàlla mooy jaas ji nga xam ne nii mooy dagg cër ñi nga xam ni mooy tubaab bi mi xeexal dafa wax ni say lazi yafritu la man thallasu tawxiduhu fa huwa al ilahu waxidu dafa wax ni jaa sama jaas ji nga xam ne ci laay core muy jaasi maana lu jaasi ju ñuy gis lu invisible la mu ni jaasi ji may core ciri tubaab yii di ñettal yàlla tawxiiduhu mooy kennal yàlla gis nga jaasi tawxiid ci laay core cëri ñi nga xam ne dañoo jël yàlla ñoom ñettal ko tawxiiduhu daal nag fahuwal ilaahul waaxidu mooy yàlla mi nga xam ni kenn kese la deesu ko bokkaale amul ndey amul baay moo bind asamaan ak suuf te mooy ki amal lépp kudul moom rek dañ la amal moom mooy ki nga xam ni kenn amalu ko boo demee ci xasida goo xam daf ciy jàngalee tawxid ba tey ba tey muy mawaahibul qudus dafay wax ni i'lam xabaakallaahu rushdan wa saa kaana ilahuna wala shay'a maa wa laysa min shay'in wala fiihi wala fii taxtihi wala alayhi nga xam ni xeetu eh, melo wii mu jox borom bi subhanahu néew na nga gis ku ko di wax ni yow mi may déglu yow miy déglu sama ndigal yow jullit bi nanga xam ni yàlla nekk na existé na te nekkam gi àndut ak dara maanaam nekkandoowul ak dara kaana na wala shay amaa nekkul ni yàlla bi muy nekk daa am lu nekkandoo moom ñu naan lii de moog yàlla ñoo nekkandoo walla shay amaa beneen bi walaysa min shayin nekkul jóge ci dara <laughs> loolu ku ko kan nga mën a wax ni nekk na te jógewul ci dara amut amul lu nekk te du daan juge ci dara dafa bàyyi ko ci dara nee na nag yàlla walaysa min shay'in yàlla moom jugewul ci dara amul loo ni mooy source fondamentale bi nga xam ni moo créé yàlla subhaanahu wa taala amut walaysa min shay'in wala fihi nekkul ci biir dara itam yàlla newul ci biir dara ndax bu nekkee ci biir dara loola da koy ëmb te yàlla dara mënu koo ëmb hmm? walaysa min shay'in wala fihi wala fii taxtihi te it dara nekkul ci ronam moom yàlla wala fi taxti amul lu nekk ci ronam ndax bu ndara nekkee ci ronam moom yàlla kon du gis la ca suufu loolu mi ngi lay jàngal ni yàlla existence am lu permanente la te it amul fu mu yem wala fi taxti walla alayhi dara newul ci kawam tam dara newul ci suufu yàlla dara newul ci kaw dara ndax bu dara newee sa kaw fi mu ne sàq fi bii ma tiim muy parafon bii ma tiim fi ne lay xew ca kaw nii actuellement xaw ma ko ndax daane sama kaw moo tax mu ni yàlla dara newul ci kawam dara newul ci suufam fii ma toogit eh, man ko misaal muy premier étage am na lu ne ci sama suuf li fay xew actuellement xaw ko parce que daa ne ci sama suuf donc kon cheikhul xadim wasf bi la jox borom bi subhaanahu wa taala wa laysa min cheyin wala fiihi wala fii taxtihi wala alayhi musjala donc kon nii la kenn la yàlla Euh, ñàkk googu mu ci ñàkkoon sago sax dem na bay wax ak jamaa daal xam nga ku dem ba joxoñ géej te ku ne xam na ni yooyu moom du ñu bokkaale yàlla bokkaale yàlla moom ñaar ñi ñoo koy def muy nit ak jinne nit ak jinne waaye lu dul ñoom ci mbindeef yàlla xam nañu yàlla te jox nañ ko palaasam waaye terewul sax gis nga muy joxoñ géej googu mel ni sax moom moo ko ëpp moo ko ëpp nu mu gëmee yàlla ah moo ko gën a sax kennal yàlla di ko jox ay conseil naan ko aya baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala an taslisi akrim bihi rabba ee yow géej gi kennalal kennalal yàlla bu ko bokkaale mukk bul ko wutal ñett bul ko wutal soxna bul ko wutal doom waxit laa tusallis ndax kat fa rabbuna taala an taslisi suñu borom bi ñu moom mag yow géej gi kawe na wëlif ñu koy ñetteel kon nag na ko def muy sab borom kon cheikhul xadim fii la tegoon borom bi subhaanahu wa taala dadi di nag fii ñu tegoon yàlla ak taqarrub biñ doon def togg ay coono yu mettee métti comme nii ko saxaaba yi lii ma ubbee ci aaya bi defee woon ba yàlla xas wàcce aaye sax naan yonent bi bu leen dàq mukk am na ci beneen aaya boo xam sax dañu ko wala taxdu aynaaka anhum sa bët bum teggi ko ci ñoom foofa la bokk ba tax nag ñu amee cër yooyu ba taxe ñuy am basira yooyu ba tax sax yàlla jaxasoog seenug dund te li xadis bu wér la su ko defee tey suñu waxtaan foofu la jëmoon dinañ leen indilaatat incha allahu taala beneen xalqa ci lu mel ni cheikhul xadim ak alquran ak taalibe yi ni ñu war a jàppee alquranul karim cheikhul xadim ak xadis cheikhul xadim ak li nga xam ne nii mooy euh, mbindam mii ma nga xam ne amul lu dul moom muy xasaa idi su ko defee kon dañuy wàcc foofu suñu kàddu di leen jox dig daje ci beneen jataay incha allahu taala ci jataay yi nga xam dañ koo jagleel waajtaayu euh, wi nga xam ni mooy waajtaayu màggal gi di ñaan yàlla nañ ko fekkee ay at yu baree baree baree bari di ñaan tamit lii nga xam ni moom lañu ñu sëriñ bi woo xam naa sax après dinañ ci ñëw te mooy dayob sant yàlla ci lislaam dayob sant yàlla ci alquran ak sunna ak meññeef ya ca mën a bàyyikoo ah su ko defee incha allahu taala ñu wàcc suñu kàddu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.